iba yo con los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 liggéey bi ngir waajal liggéey bi nag nanu àndandoo woy aba jaddab wolof bi su ma waññee ba ñett nu tàmbali benn ñaar ñett aba cëdë e ë e, fëgë hë ijë këlë mëna ñë ŋë oppë xërësë 的乌我和也。وعلى نقول وعلى نكمبا samay jarbaat ak sunuy xarit yi nekk ci kër yi di ñu déglu léegi nag dañuy laal juróomi araf yi jëkk ci abajad bi te bañ leen a woy nijaay yan jumtukaay soxla ku ci nekk ci yéen di soxla sa téere kër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 xanca ca Kaffrine ëmm ca Ndar biram ca Louga ak seen moroom yi ñoo ngi ci xët juróom-ñett léegi nag teg leen seen baaraam ci suufu araf wi jëkk wi janoo ak biddiw bi samay jarbaat ak suñu xel yi ñuy déglu ndax teg ngeen seen baaraam bu baax ci suufu araf wi jëkk te janoo ak biddiw bi waaw suñu baaraam a ngi tege ci suufu araf wi samay jarbaat ak sunuy xat yi ñuy déglu nanu laalandoo te waxandoo juróomi araf yu jëkk yi aywa ma wàññi ba ñett benn ñaar ñett a b c d e. e nan ko bamtuwaat a b c d e. e waaw kay xale yi waaw kay sunu xarit yi amu moroom nii la léegi nag nanu jàll ci beneen liggéey léegi nag ngir waajal liggéey bi yëkkati leen seen baaraamu joxoñukaay mu tolloo ak seen xar kanam seen xar yi ñuy déglu itam nanu yëkkati seen baaraam may leen ma ma xool ndax yëkkati ngeen seen baaraamu joxoñukaay ci kaw yaakaar naa ni seen xar yi ñuy déglu ñoom it niki ñoom musli ca mbàkke astel ca kaneel xoojo ca mbirkilaan ibra ca kebemeer jijaak ca gin gi new ak seeni moroom ñoom it yëkkati nañu seen baaraam saa suma tuddee araf ngeen laal ko aywa c c c b c d e a e d waaw leen góor waaw leen kumba xale yi gis naa ne teg ngeen bu baax seen baaraam ci araf yi yaakaar naa ni seen xarit yi itam def nanu ko waaw kay samay jarbaat ak sunuy xarit yi ñu déglu léegi nag dañuy tàggatu ci laal ay araf tudd leen bu gaaw ngir tàmbali dañuy liggéey ci ñetti araf yi topp ci e nijaay asan naka lañuy jànge laal ay araf tudd leen bu gaaw xët juróom-ñett ci téere kër ngeen di jëfandikoo mooy xët yu ngeen ubbi woon ci liggéey bi weesu ubbi naa sama téere ci xët juróom-ñett nijaay man tamit ubbi naa xët wi yaakaar naa ne seen xarit yi itam ubbi nañu seen téere ci xët wi léegi nag dañuy tàggatu ci laal te tudd ñetti araf yi topp ci e samay jarbaat ak suñuy xarit yi ñu déglu teg leen seen baaraam ci suufu araf bu njëkk wi topp ci e ndax yéen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf wi topp ci e suñu baaraam araf wi e. e. topp ci e aha topp ci mooy arafu e yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ e.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 araf wi topp ci arafu fa mooy gë yéen ñépp wan araf ngeen joxoñ gë léegi nag xam ngeen arafu e fa ak gë dañuy tàggatu ci laal araf yi te di leen tudd maa ngi njëkkee damay laal arafu nekk te tudd ko e fa gë samay jarbaat ak suñu xarit yi ñu déglu léegi yéenay laal araf wu nekk te wax nu mu tudd maa ngi woññ ba ñett benn ñaar ñett a fa ga waaw kay jarbaat baamtuwaat leen ma dégg a fa ga léegi nag nanu bàyyi sunu xarit yi ñuy déglu ñu laal araf wu nekk te tudd ko sunuy xarit yi amuleen moroom léegi nag dañuy tàmbali liggéey bi tudd wone araf wi ngir waajal ko yëkkati leen seen baaraamu joxoñukaay mu tolloog seen xar kanam seen xar yi ñuy déglu itam nañu yëkkati seen baaraam may leen ma ma xool ndax yëkkati ngeen seen baaraamu joxoñukaay ci kaw yaakaar naa ni seen xar yi ñuy déglu ñoom it yëkkati nañu seen baaraam waaw kay téye leen ba tey seen baaraam ci kaw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 Ah! waaw leen kumba waaw leen góor yéen ñépp laal ngeen e jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam aywa yéen ñépp laal leen fa te jàng ko fa waaw leen góor waaw leen kumba laal ngeen fa jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam aywa yéen ñépp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 danu ciy jàng naka la ñuy woññee ay dogi baat ci baat yu nu dégg te duñu jëfandikoo sàllu kanaara mari wax nu naka la ñuy dogi baat te duñu jëfandikoo sàllu kanaara nijaay ngir wàññi ay dogi baat te duma jëfandikoo sàllu kanaara damay wàññi dogi baat yi ci sama xel wàññi leen nit ci samay baaraam su ma noppee wax dogi baat yi benn benn di tàccuwaale saa su ma waxee ab dogu baat su ma ci noppee ma wax ci kaw ñaata dogi baat laa am waaw kumba waaye sama jarbaat léegi nag yéen ak seen xarit yi ñuy déglu da ngeen war baamtu baat bi may wax aywa yéen ñëpp baamtu leen xale xale waaw badu sama jarbaat léegi nag dangeen di fàttali suñuy xarit yi naka ngeen di wàññi dogi baat yi nekk ci xale nan ngay def ba wàññi dogi baat yi nekk ci xale waaw damay wàññi dogi baat yi sama xel wàññi leen it sama baaraam su ma noppee wax dogi baat yi benn benn di tàccuwaale saa su ma waxee ab dogu baat xa le su ma ci noppee ma wax ci kaw ñaata dogi baat laa am ñaari dogi baat ah, wóor na mën suñu xel yi ñu déglu mën nañoo def ni ngeen def ngir wàññi dogi baat yi léegi nag yéen ñépp def leen noonu ngir wàññi dogi baat yi nekk ci teg mari ñaata dogi nga wàññi ci teg teg benn dogu baat la nijaay kon gis ngeen waññi dog baat yi nekk ci ab baat jafewul léegi nag nanu may sunu xarit yi ñu déglu ñu waññi dog baat yi nekk ci baat bi ma leen di jox suñuy xarit yi ñu déglu baamtu leen foofu yéen suñuy xarit yi ñuy déglu waññi leen dogi baat yi nekk ci foofu yéen suñuy xarit yi ñaata dogi baat ngeen wàññ waaw foofu ñaari dogi baat la am amuleen moroom aywa jarbaat fàttali leen sunu xarit yi naka lañuy waññe dogi baat yi nekk ci bi bi benn dogu baat la ngeen ne bi benn dogu léegi nag sunu xarit yi déglu rajo bi ñoom ñooy waññi dogi baat yi nekk ci garab yéen suñu xarit yi wax leen nu ñaata dogi baat ngeen wàññi ci garab samay jarbaat yi ñaata dogi baat ñoo nekk ci garab garab ñaari dogi garab ñaari dogi baat la am waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag suñuy xarit yi wàññi leen dogi baat yi nekk ci am yéen suñuy xarit yi wax leen ñaata dogi baat ngeen wàññi ci am samay jarbaat ñaati dogi baat ngeen am ci baatu am. am benn dogu baat. waaw leen góor waaw leen kumba wax ngeen dëgg am benn dogu baat la am léegi nag suñuy xat yi ñuy déglu waññi leen dogu baat yi nekk ci gisee. yéen suñuy xarit yi wax leen ñaata dogu baat ngeen wàññi ci gisee. samay jarbaat ñaata dogi baata nekk ci gisee gisee ñaari dogi ngeen jëf yéen ñépp wàññi ngeen bu baax li mu dogi baat yi nekk ci baat yi ma leen jox mari ndax mën nga noo fàttali baat bu ngeen jàngoon ci suñu émission bi weesu seen xarit yi ñuy déglu aadama ca póotu maadu ca sikilo mbañik ca gañik seynabu ca gànjool xaaroona ca oogo ak seen yenn xat yi ñoom tamit war nañu jéem nijaay baatu yanj lanu jàngoon waaw kumba mari badu jéemal defar kàddu gu am baatu yanj seen xat yi ñuy déglu ñoom tamit war nañu jéem tey la bésu ngénte li yaayu liir bi sol na yére yu yànj amuleen moroom jàmbaar ngeen ci senu lësëngu tey bi dinañu jàng baat bu bees baat bi ñuy jàng tey mooy kàttan sama jarbaat baamtu leen ko kàttan sunuy xat yi di déglu baamtu baat bi kàttan mooy doole ji nekk ci nit wala mala samay jarbaat waxleen lan la kàttan di tekki nijaay kàttan mooy doole ji nekk ci nit wala mala ànd leen ko nijaay kàttan mooy doole ji nekk ci nit wala mala suñuy xarit yi ñu déglu baamtuleen tekki wi amu moroom damay jëfandikoo baat bi ci ak kàddu déglu leen gaynde dafa bari kàttan moo tax rabi àll yi ragal ko samay jarbaat baamtu leen kàddu gi gaynde dafa bari kàttan moo tax rabi àll yi ragal ko waaw leen góor waaw leen kumba léegi damay jëfandikoo baat bi ci geneen kàddu sunu mbër mi dafa am kàttan ku mu bëreel daan la suñu xarit yi ñu déglu baamtu leen kàddu gi amuleen moroom mari léegi dama lay jox ab laaj seen xarit yi ñuy déglu itam dañu war a teewlu laaj bi ngir joxe tontu. aywa ku am kàttan naka lay mel. ku am kàttan dafay bari doole lool. waaw kumbaawaay mari badu léegi yaay tontu ci sama laaj seen xarit yi ñuy déglu itam war nañu teewlu bu baax te xalaat ci tontu li. badu jox ma misaalu ku am kàttan. fas wu am kàttan soo ko lonkee machine dafay gaaw ahan amuleen moroom xale yi joxe ngeen tontu yu baax ci laaj yi yaakaar naa ni seen xarit yi itam ñoom it joxe nañu tontu yu baax léegi nag mari yaa war a defar kàddu gu am baatu kàttan seen xarit yi ñuy déglu itam war nañu jéem dafa bari kàttan moo tax saaku ceeb bi mu yenu diisul waaw kumba léegi badu ay ca jéemal defar kàddu gu am baatu kàttan seen xarit yi ñuy déglu ñoom itam dañu war a jéem ñey dafa bari kàttan suy daw sax suuf si dafa yëngatu amuleen moroom xale yi samay jarbaat suñu xarit yi ñuy déglu ban baat lañu jàng tey kàttan ngeen ne kàttan waaw leen kumba waaw leen góor samay jarbaat suñuy xarit yi ñu déglu kàttan lan lay tekki nijaay kàttan mooy doole ji nekk ci nit wala mala amuleen moroom samay jarbaat suñuy xarit yi ñu déglu jàng ngeen bu baax sunu émission gu tey bi bu jeexee mën ngeen a jëfandikoo baat bi ñu jàng ci yeneen ñetti kàddu yu yees jërë ngeen jëf léegi nag nanu jàll ci beneen liggéey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 waaw foo jëm mu ni ko ren daal dama fas yéene aji bukki ne ko yegsi nga dox ba daje ak man nga naan dangay aji xam nga foo jëm béy ne ko waaw bukki ne ko ci sama gémmiñ gi ci sama biir bi léegi béy ne ko kon baax na amuma doole te yow yaay boroom kàttan béy nangu ànd ak bukki léegi bukkee ngi seet fu lëndëm foo xam ne bu ñu fa duggee mu lekk ko fa ñu dem ba dugg ci benn suufu dëdd bu lëndëm ba mu duggee ca biir nag fekk fa gaynde tëdd ak ñeenti doomam doom yépp feebar léegi gaynde ne bukki dama bëgg nga fajal ma sama doom yi bukki ne ko man mënumaa faj wante bëy mii moom sëriñ la ndaxte dane dafay aji màkk kon xam na dara ci alxuraan te nga ko wax mu fañal la sa doom yi gaynde ne waaw kon boog bëy léegi nag mën nga maa fajal samay doom mu ne ko waaw gaynde ne ko noo leen di faje bëy ne ko soo amee deru bukki bu tooy ma faj ñent ñépp rekk gaynde yëkkati paaka bi jox ko bukki ne ko daggal ma sa yeel bukki xoos benn yeel bi jox béy béy jël ko fekk mu yor benn gambu lem mu capp ko ci jox benn doomu gaynde koo ko lekk rekk tàmbale cëppi-cëppi wér mu des ñett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 bukki jàpp ko yóbbu ko ci àll bu lëndam di ko bëgg a lekk far ñu gis fa gaynde gaynde bëgg béy fajal ko ay doomam yi feebar ci la ko béy waxee ne deru bukki moo leen di faj noonu bukki tàmbali dagg yaramam di jox béy waaw kumbaawaay mari badu wax nu jëmm yi gën a fes ci nettali bi seen xarit yi ñu déglu war nañu jéem ñoom itam tontu ci laaj yi nijaay jëmm yi gën a fees ci nettali bi béy la bukki gaynde ak doomi gaynde yi waaw góor badu xale yi yéen daal jàmbaar ngeen waaw kumbaawaay yow it mari léegi nag tontul ci laaj bii fan la béy bëgg a dem seen xarit yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi béy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 yegsi nañu ci njeextal liggéey bi ñu waroon def ci nettali bi wane ngeen ci njàmbar gu réeréy tàccu leen seen bopp waay yéen sunuy xarit yi ñuy déglu laataa ñuy tàggatoo ak yéen bëggoon nanu ngeen tànn ab diir ginnaaw émission bi ngir jàng li nekk ci xët fukk ak ñaar ci téere këru CI wala xët fukk ak ñaar ci téere këru CP ndax jàpp ngeen li ma wax xale yi waaw nijaay xët fukk ak ñaar ci téere këru sey yi ak xët fukk ak ñaar ci téere këru seppe yéen waajur yi bu émission bi jeexee mën ngeen jàppale seen doom mu jéem a bind wala nataal arafi abajada yi ci loolu dingeen soxla crayon arafi abajada yi ci téere kër bi ak këyit wu weex wala ab kaye waxal xale bi léegi dañuy jéem a def liggéey bi tudd powum araf yi am na solo lool nga jéem a bind wala nataal arafi abajade yi ndaxte yéen a ngi koy jàng sax ca école ba sonn pe nga ne ko nanu jéem a bind wala nataal aw araf dañuy jéem it téye keryong bi ni mu ware toppal yoon wii ngir nataal araf bi ci jëkk bindal araf wi mbind mu mag ci ginnaaw xale bi ñaareel bi na xale bi bind araf wi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 nu tàggatoo ak sunu xarit yi. jërë ngeen jëf jërë ngeen ba beneen yoon. école bi wér na mbas mi élèves yaa ca kër ya toog jaaxal seeni waajur waaye seen